di nuyu ñi nekk ci hôpitaux yi di ñaan yàlla yàlla na yàlla gaaw euh, saafara seen jàngoro ba ñu was a mën a dellu seen wetu euh, njaboot euh, di nuyu nag corps personnel médical bi yëpp ah infirmier yeeg médecin yeeg képp ku nekk di en ce moment liggéey ci hôpitaux yi di ñu ñu ngi lay nuyu bu baax personnel administration yi ñu ngi leen di nuyu également di nuyu ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw di la ñaanal yàlla na yàlla gaaw régler problème yi ba ñu bañ fa dellooti di leen ziar yaakaar bu baax a baax xel ak xol ak xalaat day nekk ci yeen à chaque fois di leen ñaanal bu baax a baax a baax alors di ñaanal ñi nga xamante ni ñooy way dawlu yi ñi nga xamante ni euh, ñoom euh, wax dëgg yàlla ñooy suñu way dawlu yi ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax di leen ñaanal foofu ñu nekk yàlla na leen gënal fii ñu jóge muy àdduna di ñaan yàlla na leen yàlla baal jéggal leen euh, bi jaay nabil Moustapha alors elles sont toutes belles ñëwaat fii nga xamante ni mooy caaro yi ñëwoon nañ fi ñëwaat fi mais dafa mel ni tey suñu belle du jour bi fi lañ koy jël see votre émission mode 100 mode tendance coiffure ñëwaat sur la 2 TV moom dani ma woon euh, boo yegsee ba ci boutique bi boutique Bamba bi nga woo ma xaaral ma woo ko xool. xaaral ma woo ko xool. allo allo ça va chérie. ça va bien. non def yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm.

novembre sax lay commencé hein inshallah allah avec euh, So Events mi nga xamante euh, da fay def ben vente privée fële ca Gambia euh le 31 hein loolu mom xalé mom danaka daanaka jeexal nañ ko nak machallah euh, félicitations à l'équipe de So Events euh, di nan aussi le 1er novembre Keba Seck day nekk foofu ca Gambie euh, yéen nag yéen ñi nga xamanteni ni yena nek a nekk Gambie yéen ñi nga xamanteni ni yena nek Sénégal ndax Keba Keba Seck Keba Seck international la so events moko le 1er novembre ci penc mi hall ngeen waajal ko nak yeen ñep xalé yi leen ah. parce que vraiment fin d'année euh, période soxla di ah. indil ñu euh, le 1er novembre fële ca penc mi hall en masse ndax Keba spectacle dafa namm jàkkaarloog waa de te bu soobee yàlla surprise non la alors waajal len ko du yomb le 31 le premier so events le 31 nek li nga xamanteni moy exposition bi le premier nek dîner bi de gala bi avec Keba Seck lolou du yomb hein ah. nuy na la ma bel maa ngi fi Khadija. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ba no tudu man fat sar Fatou naka Caaroy. Caaroy moo ngi ni rek mo ngi neex wa alors euh, ñu jël émission elles sont toutes belles lan moo nekkoon sa ah vraiment damaa contente. kontaan naa trop parce que yàgg naa bëgg participer ci émission bi mais tey la ko yàlla dogal kontaan naa trop ci li nga ma jël ci émission bi. ñoo la gën a ndax da ngaa jongoma macha allah du dëgg <laughs> alors tàmm nga di utiliser ay produits Darling. waa tam naa di ko di ko utiliser kay. noo ko gisee. ah franchement mees bu baax la te neex na ci bopp oyof na boo ko tegee daal doo sonn. Mhm. alors noonu lay demee nag xam ngeen ni muy demee du ñu def rek lu dul nànk euh, dem fi nga xamante ni moom mooy ca salon ba ñu commencé suñu defaru ah du dëgg ndax ñu loolu rek lañ fi nekkee pare nga. d'accord pare naa waaw

asalaamaaleykum maa leen nuyu mhm. mboolem ñu ñuy seetaan ñëpp mhm. kenn ku nekk sa tour ak sa sant rawatina waa Ñaari Tali bi ñoom fi mu ñëw mhm. alors kontaan nañ euh, di war a yendoog yow nag tey toute une journée indil la suñu bel du jour produit daal li ni moom dafa mel ni disponible na ba pare waaw euh, ban la ñuy utiliser New Vera bi la ñuy utiliser waaw lan nga ko ci nar a defal tey tey moom tissage laa ko ci bëgg a defar rek rez de dina rafetee. dina moom daa jongoma. waaw dafa jongoma te dafa tàng. waaw gis waaw loolu moom xam naa moom du du yàgg daal. du yàgg noonu toujours temps. ay produits daal li moom soo koy utiliser doo yàgg. non doo ba pare da nga ñëw rek def. da ngay ñëw mhm. bi kon moom tey man man damay damay xaw a yendu rek. waaw noonu rek lay demee noonu lay demee. ñu gën a yàgg rek. ban témoignage nga ñu mën a indil ci ay produits mèche daal. waaw ah, macha lépp lépp baax. Mhm.

rafet na oyof na nooy na ci bopp xale bu bëgg ma rek ah def cekkete nii rek da ngay doxantu naan cosmétique bu la gën a jege nga ut ko moom ñu verra bi nga xamante ne euh, du la déranger benn yoon ni nga ko waxee. waaw du la déranger benn yoon te yomb na it. te yomb na waaw. waaw Aïcha alors bu baaxee rek Seydou dañuy xala toog nii nànk rek cemp ah, xaar suñu bel pare du dëgg Aïcha à tout suite. ginnaaw nag ba suñu coiffure pare na ñu utiliser woon ni nga xamante ni moom mooy nu vera bi euh, greffage bu rafet nag oyof ci bopp ndax ni ngeen ko gisee nii macha allah ni mu gàttee noonu la lay ñàkk bañ a léegi nag du ma def lu dul euh, nuyuwaat rek sama xarit bi nga xamante ni sant bi dafa naqari mais tur bi dafa neex ah mais tey damay nangu. Ah, damay nangu am benn problème ah. nuyuwaat la bàyyi la nga nuyoon teg lay seetaan. waaw euh, may seetaan. Mm-hmm. ñi nga xam te ne ñëpp ñu ngi bàyyi xel ci man. d'accord ak euh, euh, rawatina ak ma nekk muy ñaar bi nga xamante ni ñoo ma dooleel. Mm-hmm. ñoo ma jàppale. bu ma yegsee fii yàlla jëm ak ñoom moo tax. macha allah euh, amoo seen fay mais ñoom it dégg naa kontaan nañ ci yow ci liggéey bu rafet bi ngay def. waaw ah, loolu moom am na moom. waaw mi ngi noonu alors ñu utiliser ñuy vera bi. Mm-hmm. alors nga ñëwal ñu ci coiffure bi nga réaliser suñu mm-hmm. belle du jour bi. waaw léegi la de côté laa ko tegal. coupe ci ginnaaw. def ko plongeon nii ci kanam mhm. ni laa ko def parce que greffage bi benn loo ko def rek loola mhm. lay delloowaat mhm. benn oyof na neex na te yombalal nañu liggéey bi yàgguma ci yàggoo ci non macha allah loolu moom dëgg la ndax euh, daanaka biñ ñëweek léegi yàgguñu fi dara coiffure beeg maquillage bi yëpp pare euh, lan ngay wax nag sa mbokk coiffeuse yi lay seetaan ci Mèche Darling nag ay produits xanaa di leen wax rek ñu dem liggéey Mèche Darling parce que yomb na neex na te gaaw na. Mhm. te neex naa liggéeyee. Mhm. Mhm. muy mèche ak greffage ak yow yàgg nga di ko liggéeyee. yàgg na lool sax di ko liggéeyee. ah waaw loolu moom wax waxatu bu daje geestu la nga yàgg di ko liggéeyee. ñu indil la ko tey à l'antenne pour nga war a réaliser sa coiffure ak moom euh, day wane ni maîtriser nga produit di wax képp ku ñuy seetaan ngeen gaaw daa daw gaaw ci produit bii di Nuvera wala yeneen ak yeneen ah ku ci nekk rek yaa xool bi la saf bi nga sentir ko ci mèche Darling moom nee naa la dafa ñëw produit bu jigéen soxla rek pour taral bopam mom indi nako ci marché bi. da ngeen di woté ci service commercial bobu bo len bëggé ci produit en détail en quantité ngeen woté wax li ngeen bëgg ñu livrer len ko alors ma belle salon bi ku fi bëgg ñew fan la nek waaw mi ngi ñaar tali nak koñu salam Diallo ci kaw tali bi. Mhm. boo jegee jeu de troisième koñ bi ci kaw tali bi. Mhm. bo jegee xayma bi di ñew mhm. boutique bi jàkkaarloo ay sé ñaar tali bi. d'accord. incha alors nga joxé numéro de téléphone bi waaw sama numéro de téléphone nag 78 634 56 28. jox waxaat ko. 634 56 28 78 634 56 28. d' accord alors fii moom dañuy solu rek nekk ay lutteur nag. waaw ma bàyyi la nga gërëm daal def say <laughs> remerciement. jël sa temps ku gërëmul rek yow. ci yow waaw waaw kay. Eh. Ah, su fi may njëkkee nag mooy sama ñaari waajur. Mm-hmm. sama di gërëm sama papa di gërëm sama yaay di gërëm sama borom kër. Mm-hmm. Ah, di gërëm itam sama élèves yi. Mm-hmm. di gërëm waa ñaari tali yi nga xamante ne ñoo ma dooleel. di ma jàppale ba léegi 2009 ba léegi maak ñoom. Mhm. ba léegi bàyyiwuñu doyloo ma jox ma seen lépp. Mhm. maa leen gërëm di leen sant di gërëm Ndeye Coté. Mhm. sama xar bi nga xam te ne moo ma jàppale su ma yeggee fii tamit yàllaa jëmmal moo ma tax. maa ngi gërëm waa Ñaari Tali yëpp. di gërëm na sama groupe bi May Bijou maa leen ziar ñoom tam. di leen nuyu. sa groupe ban May Bijou. waaw groupe waaw moom la. ah wali, li lii man ne yow amu ma la xàmmee. yow ñoom mami Fallou ak da ngay def ñoom ñoom Miss Moussa ñëw Wa waaw. kër Bijou. fa anniversaire am. anniversaire ah fa newandoo woon. kay. ah man tey nee am na fu ma nyom xàmmee nag Maguette ah. <laughs> du dee gis nga. ñu <laughs> eh, eh, ngi leen di jàmbaar liggéeykat yooyu. nga xamante ku ànd ak ñoom da ngay liggéey. waaw comme ki ñuy bëgg. dëgg la mooy Bijou Ngoné. nyom wax euh, wax ay mm. mais Seydou ñoom mami fallu nak ma ngi leen di nuyu euh sama sama mag yooyu nga xamanteni ño bokk yaay alors ñu ngi lay remercier mm. am nañ mbégte ak contentement mm. ci dalal bi tay mm. di wax kep ko ji euh dekk ñaari tali wala aux alentours hein ah, fep rek fo nek bëgg lu rafet bëgg maquillage bu rafet bëgg coiffure bu rafet bëgg greffage perruque ah du lepp lu jong ma lo xamanteni day taral jigen di ngeen di ñew fi ci salon bi bo leen ko wowe numéro de téléphone baa ngi noonu day def ay déplacement day def lepp ku ci bëgg jong ma bëgg jël pay fa nga dem non woo leen ko doo leen jël doo leen jël ay sax ay ay deux ay un et benn ngay jël ah ay ca ñu toog ma ak sama benn léegi waxtaan lu neex de journée pour cette émission ma toogaat sama belle du jour euh, moom mi nga xamante ni moom laa ubbi waloon émission bi fas yéene rek ñu waxtaan tuuti balaa ñuy tàggatoo ma belle nuyuwaat naa la. maa lay fay bu baax. noo def. maa ngi fi. sonnoo. non sonn ma. naka nga passé ce journée tey. ah journée bi tey neex na trop. dëgg yàlla. Hmm. sonn ma benn yoon. macha allah alors li la defal ci coiffure ak Nuit Vera bi neex na la am déet. waa neex na ma trop kay. neex na la. Mhm. alors ban sentiment nga am nii ak ni nga ko tegee tu vois ban témoignage nga ñu mën a defal. waaw teg bi moom oyof na. Mhm. neex na si bopp ak tàngaay bi tamit. Mhm. mun nga ko yóbbu fépp tamit. mun nga ko yóbbu fépp. nan ngay wax sa mbokku jigéen

waaw euh, wanal ma ko caméraman bi nga xamante ni wax dëgg yàlla lu ñu émission rek koŋ nañu ko. Hmm. moom Seydou waaw euh, nu vera bi nag moom lañu utiliser tey. Euh, defal ko ko macha allah mu nekk greffage boo xamante ni rafet na nooy na oyof na ci bopp te du la encombré benn yoon. Hmm. mi ngi disponible nag partout au Sénégal fépp foo dem tey préféré mèche darling mën nga ko fa am. neex na encore une fois oyof na te du la déranger benn yoon te li ci neex ba ndax ki cay neex mooy jarul dara. waaw dem leen nag ngeen jëndi ko ngeen def ko parce qu'il fait chaud ñu ngi si période chaleur lu ñu bëgg dara lu ñu encombré ah ba tax na moom mèche darling daal gàcce ngalaama comme mhm. d'habitude du dëgg ah, mhm. d'accord ga ay ca mi ngi noonu alors mèche darling moo la may bi hmm, cadeau boo xamante ni bel bu ñu dajal dalal fii dañ ko koy jox mm, c'est de la part des mèches darling kontaan naa trop hmm. ay ayca euh, ñu ñëw nag ci li nga xamante ne loo bëgg ñu waxtaane tey sax yow ma lay may choix ñu ngi laa ci législative yi yow yow yow koo faral sax déjà. ah Sonko la. Sonko ah patriote la. yow patriote nga. Mhm. ay yow ndeysaan bi ah. patriote la xaar mu xaar mu noppi sama xol bi dafa kii daal dafa dafa loolu noonu daal ah. ah wax naa ne ko moom. ayca lan ngay wax lan ngay wax jeunes yi nga xamante ni ay patriote lañ. ah jeunes yi. Mhm. xanaa ñu may leen temps rek parce que 6 mois moom kenn mënu ci liggéey. Mhm. pas patriote sax ah jeunes yëpp tey lan ngay wax sa mbokku jeunes yi par rapport ak gouvernement bi nga xamante ni ñoom ñoo toog nii. ah comme ñun ñoo ko wóolu. Mhm. ñu gëm projet bi. dañ koy may temps rek. bu ko defee mu mën a liggéey Sénégal jëm kanam. jëm kanam jëm ci kanam. projet bi yow euh, am nga ci yaakaar. waaw am si bu baax. Hmm. Mhm. yow yan point wala jotoo ko lire bu baax mais kii nga ko daal mais euh, gis nga ni ci réseaux sociaux yi wala jot nga ko lire mais yaakaar nga ni incha allahu rabi 2050 Sénégal dina nekk benn pays bu développé. waaw dina nekk beneen Sénégal. beneen Sénégal mhm. bu développé. ah waaw mi ngi noonu ñu koy ñaan yàlla rek di ñaan yàlla euh, ñi ñu fi teg nii yàlla na leen yàlla yombalal yéen bi mhm. def li nga xamante ni moom la ñu mbëbët euh, ci Sénégal ndax Sénégal moom wax dëgg yàlla Sénégal Sénégal yu ñëpp la te mhm. ñu ñëw réussite Sénégal lañ bëgg kon yàlla na leen yàlla oyofalal yéen bi alors ma bàyyi la rek nga def sa remerciement waaw di remercier sama yaay mhm. sama papa ak sama nijaay bi ma yar mhm. di nuyu suñu waa kër yëpp bayuma kenn nuyu naa ñëpp. Mhm. suma limé limee damay juum. Mm. Mhm. yaa ngi nuyu ñëpp fàttewoo kenn. déedéet ñëpp. ma may la nga xalaat wala ñëpp ñëpp rek ñëpp mooy ñëpp rek. ñëpp rek ñu ah. naa ñëpp ay <laughs> ci mi ngi noonu kontaan nañ ñun tamit ñu ngi lay remercier. Mhm. ci accordel bi ñu accordel euh, émission bi tey. Euh, di nuyu képp ku ñu doon seetaan encore une fois di leen remercier bu baax a baax a baax ci safoo bi ngeen safoo euh, seen émission bi nga xamante ni mooy seen émission mode préférée bi leen di à chaque fois coiffure yu en compagnie des mèches d'art sur le marché euh, di nuyu ñi nga xamanteni ñoo nekk fi également ñi nga nekk ñi nekk ci diaspora bi di am mbégte ak contentement bu baax a baax a baax ci yéen di remercier waa salon bi ñu seet si woon tey euh, di leen ñaanal jàmm di leen laan aussi ngeen ñëw fii boo leen bëggee defaru ah bëggul rafet bëggul pop alors merci beaucoup amis chers téléspectateurs di leen remercier képp ku toogoon di ñu teewlu à travers les antennes de la première chaîne de télé privée du Sénégal euh, merci beaucoup mes hommes de l'ombre ah, comme ni muy demee à chaque fois l'équipe choc du côté des Mèches Darlings merci beaucoup Bamba Merci beaucoup, Tonton Bass. Du côté de la DGCV pour le montage, merci beaucoup, Omar. Merci à Seydou ci cadrage bi euh, di leen jox numéro Elles sont toutes belles. D'ici là, bonne suite de programme sur la DGCV. Ciao.